أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokki jullit yi ñoo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey nu toll ci suura at tawba ci kàttanu borom bi ñuy jël tey ñeenti aaya aaya 107 108 109 110 ñeenti aaya yoo xam ne sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaalu mu ngi ci jàngal juróom benn mbir yooyu ba ca jiitu mooy bayaan akbar mu'tamara diddul islam qaama biha almunafiqun bi irsaadi alfasiq abi amir arrahib danañ jàng complot bi gën a rëy bu ñu complotwee l'islam ba koo faagaagal ci jamono yonent alayhi salaatu wasalaam complot bi gën a ngande xam ngeen ne complot l'islam moom pour faagaagal ko jógul ci kaw suuf boobu ba tey waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam complot bi gën a rëy ci dundam mu fekke ko ñu complot ko contre l'islam pour faa fexeel ko pour faagaagal ko pour tasaare jullit yi pour taqale leen pour noonale leen kompo boobu komplo boobu mu ngi xew ci jamo ci dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoom ñan ñoo ko organisé woon mu ne qaama bihal munafiquun naafiq yi ñoom ñoo ko organisé woon ak seeni mbooloo ci njiital benn waay bu ñuy wax abi amir al rahib waa ji ci kanam tuuti dinañ xam histoire am ana lan moo ko dugal ci comploté l'islam kon danañ jàng tey complot gi ñuy complot l'islam ñii tey di complot l'islam seeni seeni maam dëmb la ñuy roy rek congrès yeeg colloque yi ngeen di dégg ak pexe yi ngeen di dégg guddeeg bëccëg ñu koy complot alquran ak sunna di ko complot l'islam ñi koy def tey seeni maam lañ ko jàngee démb ndax seeni maam a ko doon def moo tax tey ñoom ñu roy leen ci danañ jàng tey bayaan anna tanazuu sharaf wa sababul bala kullul bala dañ jàng tey mbokk yi xëccoo pouvoir xëccoo ndomba tànk xëccoo njiit xëccoo daraja xëccoo martaba mooy jural jullit yi musiba chaque jour tout le temps musiba bii wàcc ci kaw jullit yi li tax jullit ñi di néew doole lu tax jullit ñi di tàqalikoo lu tax jullit yi seen mbooloo yi di tas lu ko waral mooy bëgg daraja bëgg ndomba tànk bëgg a jiit bëgg a falu bëgg a nekk ci kanam bëgg nañ la dégg yow kese loolu musiba gu rëy la mu ne fabnu ubay haaraba al islam li annahu kaana yuammilu fi sultan am na ku ñuy wax ibnu ubay abdulaay bun ubay bun salul xeex na l'islam lu tax ndax jàpp na ne madina ndomb tànk yi mu takkoon daraja yi mu amoon martaba bu mu am bu sayyiduna muhammad alayhi salatu wasalaam ñëwee Medina affaire bi day yàqu moo tax mu xeex l'islam mu ne bu mu fi avancé moo tax mu xeex yonent bi alayhi salatu wasalaam ndax dafa bëggoon pouvoir moo tax gis nga alkande bu dal doomu aadama yi tey mooy bëgg pouvoir moo tax ki bëgg pouvoir amul gàcce amul kersa amul jom amul mbokk amul xarit amul àndandoo su la nee tey dafa ñuul suba mun na la wax ñuulul dafa su la nee kii ku baax la ci 11h la la ko wax 11h lañ ko dékk ay micro mu ne kii kenn gënu ko une heure dañ ko dékkaatee mi micro yi mu ne kii moo gën a yées iblis moo tax bëgg ndomba tànk bëgg bëgg pouvoir musiba weesuwu ko ixwatal iman wa abu amir ar rahib kii ñu doon wax sànq kaana sababu xirmaanihi wa huwa rasul sallallahu alayhi wa sallam moom tamit lan moo ko alak mooy bëggoon ndomba tànk bëgg daraja yeneen bi alayhi salaatu salaam ne tëll Madina mu daal di génn dem nekki nasaraan nekki labbe ndax bëgg jiit taxal ko mu dem nekki labbe allahu akbar yemul ci loolu waaye dana yonent bi alayhi salaatu wasalaam maa qaataltuka qawman qat illa qaataltuka maahum yonent bi saa yoo xeex ak ay nit danaa dem farak nit ñooñu xeex ak yow ndax bañ bu mu bañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam li gën a garaaw sax dafa dem ruum dafa exilé xam ne daraja yooyu mu bëgg ndomba tànk yooyu pouvoir yooyu mu bëgg mënu ko am mu exilé jóge Medina daal dem Rome daal di nekk nasaraan nekk chrétien nekk labbe fa la dee mbokk yi dana jàng tey laa yaslihu laa yasixu al iqtiraar bi aqwali ahli nifaq fa innaha kasbun kulluha danañ jàng tey ñun jullit yi ñuy bañ a waru nga dëkk ak benn waay boo xamante ne dalay jay yow kay bu doon du yow yow kay yaay ngand mi yow yaa fi mën yow loolu bu mu war nit yonent bi alayhi salaatu wasalaam sax dafa ne su ngeen gisee kuy taggaate na ngeen xëpp ci gémmiñam suuf yal na yàlla yërëm Cheikh Nasiruddin al Albani ndeysaan benn bis dafa ànd ak benn taalibeem taalibe bi di ko jay ne ko sëriñ bi mu ne ko labbayk mu ne ko est-ce que xam nga ne àdduna bi instant bi yaa fi raw ci xadis ñépp say taalibe lañ kenn du indi benn xadis loolu yaa ko gën a xam yaa ko dàq firi ndeysaan cheikh bi daal ne alhamdulilahi rabbil alamin maa ngi sant yàlla dafa am xadis boo xam ne dama kaa jéemoon dund ci sama àdduna mënu maa fexe ba dund ko tey nag yàlla may na ma temps bu ma ko dundee taalibe na ko ban hadis la mu daal di tibb suuf rek daal di koy xëpp ci gémmiñ gi ne ko yonent bi nee na bu ngeen gisee koy tagg nit ñi na ngeen ko xëpp suuf ndeysaan gis nga ne ko may nga ma occasion tey ma dund hadis boobu nañu moytandiku ay taggaate nañu moytandiku jayaate gaa yi ñëwoon nañ doon jay yonent bi yow doo nit yaay ngand mi yaay yaay yaay mu ne leen eh laa tatruni kama atarati nasara ibnu maryam bu leen ma jay comme chrétiens yi ni ñuy jayee isa ibnu maryam kon al ixtiraar bu ñu waru bu ñu waru waaw yéen da ngeen di dund sunna yéen da ngeen di nangam yéen da ngeen di dem jàkk yéen da ngeen di jàngal quran yéen da ngeen di julli yéen kay man kay deet bul waru jullit du waru ya Musa la taaman makri hatta tara nafsaka fil janna yàlla dana woon Musa bul waru bul yëkkati sa bopp bul ngand ngandulu lu dul nga xëy gis sa bopp biir aljanna nga doog a ngand ngandulu feeg du ko waa ajana bul ngand ngandulu xamoo balaa ngay dee lan moo fi xew xamoo fooy mujjee ba ca tegu mooy bayaan ayu masjidin ayuma masjidin buniya lil idrar wa tafarruq bayna al muslimina mu ne wa illa wa yajibu hadmuhu wa tahrimu solaati fiihi bépp jàkk allahu akbar bépp jàkk boo xam dañ ko tabax dara tabaxuñ ko lul farfarloo ak ñoom diw jàkk diw nee na jàkk jooju la ca dagan mooy ñu màbb ko te jullee fa araam na loolu nag tey bu ñu ko doon xool ci Sénégal ak bëri jàkk yu ñu war a màbb kon xam ngeen ne génération jamono bi ñu nekk mooy nit ñi xiirtewuñ lu dul tiitaroo jàkka koñ boo dem sax nit ñaa ngi daaneel jàkk ji di yëkkati ndax jàkk jee nekk ci côté bi yëkkati nañ ko gaa yaa ngi ngand ngandalu defar jàkk yoo xamante ne da ngay gis ñoo xam dañuy tabax jàkk te duñ julli ci jàkk ji voilà ak bëri tey ñoo xam ne ñi ëpp Sénégal ñi nga xam ne dañoo joxe seen xaalis nañ tabax jàkk duñ julli ci jàkka yi danañ jàng tey bépp jàkk boo xam ne dañ ko tabax pour tàqale jullit yi du ma fàtte mukk am na benn jàkk bu nekk fi ñu ngi ko tuddee Iran Irak jàkka ji ñaari jàkka yi kenn mënul jaar ci diggante bi ñaari jàkka yi kenn mënul jaar ci diggante bi ah bi daa nekk ni bii nekk ni ñu rëkki la bii def ko fii ñii fii la ñu mere tabax fii jàkka ji ñu tuddee leen Iran Irak jamono yooyu Iran ak Irak xam nga ñu ngi guerre ñu tuddee leen Iran Irak bu ñii li xaamee ñii li xaam ñii julli ñii allahu akbar allahu akbar ñaari imam est-ce que loolu yàlla la ñaari jàkka yooyu yëpp aram naa julli yëpp jàkk boo xam ne li tax nit ñi tabax ko mooy mer ñun dañoo mere fee man damaa ñëw nekk ñu def ma deuxième imam ñu jékki-jékki léegi ne dañ may folli ñoo loolu rek nga gis tey Sénégal waaw waa joo xam ne da doon jiite ñu ne ko léegi jiitee too mu mer rek la fële tabax jàkkaam loolu du diine buñ la nee doo jiite nga nekk ci ginnaaw lan la waa ji day yóbbaale jàkka ji bu julli ba pare mais déedéet parce que ay intérêt ñoo nekk ci imaama gi ay intérêt ay ay ay ay ay ay ay léeg-léeg benn waay ñëw daa di ana imaam jàkk ji ñu ne moo ngi nii mu nuyu ko am lu mbaay ci loxo bi tay ne nañ benn jàkk benn waay daa ñëw ne ana imaam bi fekk bilaal bi nodd ba pare mu ne bilaal ana imaam mu ne imaam ñëwagul mu ne am cinquante mille yi yaa ko moom imaam bu ñëwee ñetti paquet suukar yi moo ko moom waaj ne imaam dégguma loo waaj ne bilaal bi ne waa ji dégguma loo wax de mu ne ko cinquante mille yi yaa ko moom imaam moom moom ñetti paquet suukar yi ñu ñëw imaam ñëw ñu li xaam julli ba pare asalaamaaleykum bilaal bi ne imaam am na benn waaju baax bu fi ñëw indi fi sarax jox na ma cinquante mille nee na yow yaa moom ñetti paquet suukar yee yenn paay nekkoon ci kanam daan ne imaam tamit mu ne benn paay ne ko yow la nga ne lan mu ne ah waa ji de wax dëgg yàlla laaj naa ko sax de mu ne man maa moom cinquante mille imaam moom moom ñetti paquet sukkar yi waaye na ko ñu jàpp paa bi daal pamti pamtee ko ba paa bi joxe cinquante mille yi jox ko imaam daal di buub ñetti paquet sukkar yi yóbbu këram mu am lu ko métti nag parce que moom laaj na waa ji waa ji na ko yow yaa moom cinquante mille mu jël paquet suukar yi teg mu ubbi bu njëkk bi mu gis suukar mu ubbi deuxième bi mu ubbi troisième bi mu fekk ci un million. yéen a gars yi nee nañ da koy delloo wala du ko delloo laaj naa leen loolu yàlla après ixwatal iman kon dafa bëri say sunu jàkka yi. ayuma masjid buniya lil idrar bépp jàkk boo xam dañ koo tabax pour lor jullit yi pour tàqale leen dañ ko tabax wa tafriq bayna al muslimina séparé jullit yi xoolal xoolal jàkka yi tey ni mu séparé jullit yi jàkk ñoom diw jàkk diw jàkk diw am na ñoo xam ne ay jàkk duñ ci julli dana leen jaral ñu romb jàkk cinquante millions mètres man fee laay julli jee ndax foofu mooy sunu jàkka sunu jàkka jàkka ku ko moom ah dañoo dem ci benn sëriñ bu mag génn àdduna ci Sénégal gaa yi na ko ñun de tarixa sàngam lañ bokk est-ce que war nañoo julli ci jàkka sàngam wax ko beneen tarixa mu ne leen déedéet ah waa ji ne gis nga lu ma la waxoon nee naa la ñun waruñu dem beneen jàkk mu ne ko ñooñu tamit ñooñu ngay wax ñooñu tamit waruñu julli seen jàkk yéen it mu ne ah kon mbooloo mu nekk da ngaa war a de yem sa jàkk mu ne waaw ñoom ñaar ñu jóg bëgg a dem mu ne leen toog leen ñu ne lan la mu ne xam nga lu tax ñee waruñu julli ci jàkka ñee ñee waruñu julli ci jàkka ñee ñu ne waaw mu ne dañooñu dañoo amul jàkka wa annal masajida kon kenn amul jàkka ba ngay dem di julli jàkk keneen jàkka joo romb jullil yàllaa ko moom dul masjidu diraar mooy jàkka joo xam ne day tàqale julli yi man nag gis naa ci Sénégal jàkka joo xam ne sax kenn du fa jàng alxuraan jàkka ji romb naa ko ñetti at ñu koy tabax mosuma dégg ci jàkka ji alxuraan daa yoo rombee rajo baa ngi tàkk mais leneen moo fa nekk su ma leen tegtaloon jàkka ji ñëpp xam ko deet bàyyi bul joxoñ bàyyi noonu rek su ma waxoon rek ñëpp dinañ kenn du fa romb ba dégg fa alxuraan foofu jarut a julli jarut a julli am na jàkka yoo xam ne dafa dafa jar ñu màbb leen màbb ko wallahi alazim jarul julli ku fa julli sax doo am julli ndax yonente alayhi salatu wasalaam moo joxe ndigal nañ màbb jàkka ji parce que yàlla moo ne ko jàkka ji baax waaw xool toll na jàkk yonent bi di joxe ndigal nañ dem màbb jàkk ji ixwatal iman danañ jàng tey fadlu tatahur wal mubalaga fi taharatayni ar ruhiya wal badaniya dañ jàng tey ngëneelu laab waaye ëppal ci laab jullit dañoo bëgg mu laab na ci dem ba jeex waaye ci ñaari façon laab yépp mooy laabu ruux ak laabu yaram fexeel sa ruux set ni ñuy sonnee ci sunu yaram yi sonnee ci sunu yëre yi sonne ci sunu environnement ci lu nu wër dañuy fexe ñu sonne loolu ci suñu ruu ndax ruu gi laab ndax kat ruu bu tilimee doo egg ci yàlla tabaraka wa taala sa ruu tilimee doo egg ci yàlla borom ruu bu tul tilim doo egg ci yàlla ndax ruu mooy egg ci yàlla sa julli yi ngay julli sa koor yi ngay koor alxuraan bi ngay jàng azaka bi ngay joxe sarax bi ngay def askar yi ngay def moom mooy setal sa ruu moo koy laabal loolu moo lay jegeloo yàlla tabaraka wa taala kon soo déggee diw dafa jege yàlla jaamu yàlla yim def ak góorgóorlu yi loolu moo ko yóbbu waaye bu dee ruu bi dafa tilim xam ngeen ruu lu koy dundal xam ngeen yaram lu koy dundal yaram lu koy dundal mooy lekk ak naan ak la ca aju amma ruu lu koy dundal mooy ibaada mooy jaamu yàlla kon jaamu yàlla googu di dundal ruu wala waa doomu aadama war a def bëril ko ba ruuam set dina njàng tey mbokki jullit yi at tahzir min az-zulmi wal israaf ñu moytandiku tooñ jullit du tooñ jullit du tooñ jullit du ëppal ci tooñ sooy tooñ yàlla dalay xañ njub doo jub mu fépp koo gis tooñkat du jub tooñ yàlla dakaa araamal ci boppam te mu ëpp doole ñëpp inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu baynakum muharrama fala tazaalamu jullit du tooñ yeneen bi nee na iyaakum wa zulma fa inna zulma zulumaatun yowma alqiyaama fattaqu suxa fa innahu ahlaka man kaana qablakum moytandiku leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm la yowmal qiyaam moytandiku leen nay ndax nay moo alagoon ñi leen fi jiitu kon jullit du tooñ sooy tooñ yàlla dalay xañ jub tooñkat dafay alku ëllëg yowmal qiyaama ci àdduna lay njëkk a perte ndax balaa muy génn àdduna yàlla dina nangu àqu ñi mu doon tooñ ñépp te ko ci kawam bu demee àllaaxira dafay perte ay loxoy kese la fay indi dafay ñëwee kon bu ñu tënkee juróom benn mbir yi mooy yi nga xam ne moom la ñuy jëlee tey ci sunu ñeenti aaya yi bi iznillahi tabaraka wa taala ma bàyyi cheikh bi mu jàngal ñu aaya yi bi iznillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا فرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى allahu akbar والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يطهروا فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم barakallahu fiik jazakallahu xayran yal na nañu yàlla fayal la yiw alxuraan mbokk yi waxu yàlla dëgg la buñ ko jàngee rek nga am loo yëg ku ko mën a jàng nag ku mu mën a doon loolu moo leen di wan ne waxu yàlla la jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu sunu borom subhanahu wa taala mu ne والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والذين غانيا nga xam ne ismu mawsul lil aqil yàlla borom xel yi lay waxal ay nit lay waxal waxul ak ay garab waxul ak ay njaay àll waxul ak ay rab yàlla ni muy waxal mooy doomu aadama yi mu ne wallazina gaa ña nga xam ne ittaxasu dañoo jàpp masjidan ab jàkka jàkka joo xam ne li tax ñooñu ñu tabax ko mooy diraaran lan mooy loolu li ajlil idraar ngir lor julli di loolu moo tax ñu tabax jàkka ji tabaxuñu jàkka ji ngir yàlla waaye dañ ko tabax ngir lan ngir lor jullit yi laaj bu ñuy laaj mooy ñii tabax jàkka ji kan mooy tabax jàkka jullit imagineel kii tabax jàkka ba pare ñu ne ko jàkka ji baaxul lu tax jàkka ji baaxul mooy yéeneem moo tax jàkka ji baaxul lan mooy yéeneem ci mu tabax jàkka ji tey jii bu ñu doon laaj jullit yi tabax jàkka ci àddina bi te sunu réew mii yéen jàkka yi ngeen tabax lu tax ngeen koy tabax lu ñuy wax ñi ci ëpp farfarloo ak bëgg a feeñ ngand ngandulu surtout nag jamono yii ay gis jàkka joo xam ne vraiment liñ ci def li waa ji doon wax mu ne porte ka porte kaaba bi kaaba gi porte bi muy wax ñaata gramme or lañ ko defaree kaaba gi laa wax de muy wax ñaata gramme or comprendre naa ko parce que yor naa livre bi ñaata gramme or lañ def ci kaaba bi mu ne lii amul njëriñ amul njëriñ kaaba gi soxlawul buntu or ndax suñ jëloon xaalis boobu tey jullit yaa ngi fi aajowoon nañ ko yonent bi alayhi salaatu salaam bi ko architecte bi doon defaral jumaa ji da ko ne bul xonqal bul zonal na nga fexe ba bu bu ñu naaj laal bu towee bu ñu ndox laal jeex na liñ taxa mais tey concurrence ñoom diw tabax nañ dañuy tabax waaw moo gën a mag ci Afrique moo gën a mag ci adduna bi moo gën a moo gën a moo gën a waay waa gis ngeen suñu jàkka ji suñu soo nee suñu rek islam génn na ci jàkka ji jàkka yàlla la wala du boobu wallazina taxazu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna almuminin gaa ñi nga xam ne dañoo jàpp tabax jàkk te xoola ba ñuy tabax jàkka ji dañoo ñëw ci yonente bi alayhi salaam ne ko comme fee dafa xaw a xëccu suñu tabaxee fi jàkka mbooloo mi dana gën a bëri danañ mën a mën a daawa gaa yi danañ leen mën a gën a ji ah ah yonente bi ne waaw léegi comme damay tukki tabax leen ko balaa may ñëwaat na fekk ngeen pare ma jaar ubbi ko ñu commencé allahu akbar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkee ci yoon bi di ñëw yàlla xamal ko ne jàkk ji baaxul allahu akbar ne ko masjidu diraar la lan moo tax ñu tabax ko wa kufran ci cosanu kéeféer lañ ko teg kufru eddi yàlla dañ ko tabax ak ban wa tafriqan baynal mumin ak tàqale jullit yi gis nga ñii nar a jullee fii bu leen gaa yi jàppee dañuy tourner seen bopp yi waaw suñ borom nag subhanahu wa taala moo xam la ca biir moo tax mu wax loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam yemuñ ci loolu waaye wa irsaadan dañ fay xaar ba tax wa taraquban dañ fay fuuglu di xaar li man xaaraba allaha wa rasulahu kuy xeex yàlla ak yonent ñu ne la fii mooy sees bi ñëwal ñu formé la lan lañ wax yonent bi jàkka mu nangul leen ko ndeke jàkka ji dañ ko def pour xaar ñi nga xam ne dañoo contre l'islam buñ ñëw ñu ne leen jarul ngeen di dem fee yem leen fii waaw li ngeen di dégg fi doy na pour wàññi mbooloo jullit yi tey loolu moo am ci àdduna bi loolu moo am partout foo dem masjidu diraar yi du jeex sunu borom subhanahu wa taala mu ne def nañ loolu ñoom munaafiq yi naafiq yi pour lan kar ñi nga xam ne dañoo contre yàllaa kub yonent min qablu démb ña leen contrôle tey am nañ fuñ jëm dégg nañ am na benn jàkk ji fi nekk seeni gaa ñoo fa nekk ñoo ko tabax au lieu ñu dem jàkk yonent bi ñu daal di yem fii jàkk ji yonent bi tabaxoon mooy masjidu Quba ak masjidu Nabawi ñaar yooyu au lieu julli di dem fa déedéet léegi dañuy yem ci masjid bii nga xam ne mooy masjidu Diraar borom bi tabaraka wa taala mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nga comme seeni pexe feeñ na man yàlla feeñal naa ko ñoom duñ yem ci lool de wala yaxlifunna danañ ñëw ci yow di waat naan géej nañ ci màggaay yàlla non du loolu ñun li tax ñu tabax ko yàlla wax dëgg wala ñoom ñoo wax dëgg ah kan moo infirme yonent bi yàlla aaya baa ngi nii bi yonent bi nekkee ci yoon bi fas yéene faa jaar la aaya bi wàcc jibril wàcc yàlla jox ko aaya yi waaye xoolal gaa yi duñ yem ci loolu de danañ ñëw ci kanamu yonent bi alayhi salaatu salaam di waat moo tax gis nga koo gis mu bëri lu muy waat booy ba nga moytu waat kat alxuraan wax na ko wala tuti kulla kulla xalaaf bul topp waatkat xalaaf koo xam ne boo xëy mu ne billaahi man nag balaa may des nag barke Seydina Muhammad loo ne wala joo- wala barke barke laa ilaha illallah yooyu la ñuy gëm laa ilaha illa ku la ci gën a mën a fen moo la dàq wax barke laa ilaha illallah barke laa il loolu lañ fi xamaloon di temps yii koo wax rek mu ne barke laa ilaha illallah loolu day waat ay barke laa ilaha illallah barke Seydina Muhammad moom kufru la ndax man xalafa bi gayrillaahi faqad ashraka wa kafara képp ku waat ci ku dul yàlla Seydina Muhammad sax laa boo waatee ci moom bokkaale nga weddi nga yàlla yonent bee ko wax sallallahu alayhi wa sallam man kaana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut kuy waat na waat ci yàlla te noppi dafa am ci al ci islam ñi ñuy wax al abadala al abadala mooy jamu abd abdullah ibnu abbas abdullah ibnu amr abdullah ibnu omar abdullah ibnu masud ñeenti ñi ñoom ñooy al abadala al arbaa mooy la ñuy wax al abadala gis nga ñeem ñeenti ñu ne boo giñee ci yàlla nga fen yàlla dina la baal waaye boo giñee ci yàlla nga bokkaale nga giñ ci keneen nga bokkaale yàlla du la baal nga giñ ci nit nga wax dëgg yàlla du la baal nga giñ ci yàlla nga fen yàlla mën na laa baal lu tax ndax giñ ci ku du yàlla bokkaale la te yàlla du baale bokkaale inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wa ma lizzalimina ku giñ ci yàlla nga fen yàlla dina la mën na laa baal waaye boo giñee ci nit nga wax dëgg man nag da ngay dégg fii Sénégal ku la ne man de ku ma giñal ci diw rek ma xam ne dëgg la te yonent bi neen bu kenn giñ ci diw moom def nañ loolu ba pare ñëw ci yow di nganda làmmiñ wala yaxlifunna dinañ waat laam bi laamul xasam la nun bi nunu tawkid giñ naa ci sama màggaay man yàlla maa ngi lay wax yow Muhammad gis nga ñiy def lii danañ taxaw sa kanam di waat daan lañ la wax ne ñoom jàkka ji lu baax rek moo taxoon ñu defar ko in aradna illal xusna ñun bëggunu woon lu dul lu baax gis nga soo gisee ñu tabax ko mooy nangam nangam rek yoo wa tafriqan baynal muminin tasaare jullit yi séparé leen ak attentat yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ñu naan li tax yàlla tuddee masjidi masjidu diraar mooy biñ ko defaree ba pare fii ci kanam xam nga boo demee Sénégal jàkka yi buñ ko tabaxee ba pare lan lañ def ci minbar bi benn bën bën du ngeen koy gis nee nañ gars yi dañ faa def bën bën bu ngand boobu def fa ngandum doj pour yonent bi bu ñëwee bu kàbbaree ba rukkoo sujjóor rek am koo xam dafa nekk fële rek ba ma xeer bi ci kanam mu daanu ci kawam dee am na ñu ne loolu moo tax yàlla mu ne yonent bi bul dem ci jàkka ji ndax dañ ko bëggoon attentat rey ko moom yonent bi mais dëgg dëgg li tax yàlla ne jàkka ji bu mu fa bu mu ko bu mu fa dem yàlla wax na aaya bi lan moo tax mooy jàkka ji masjidu diraar la wa kufran wa tafriqan baynal muminin waaw nekk yamuñ ci waaye wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasula jàkka ji ñeent yi la boole moo tax yàlla tabaraka wa taala jox yonent bi ndigal ne ko mabbal jàkka ji na nga ko lakk na nga ko lakk la ko wax mabb ko nga lakk sax la fa la fa tegu woon yamul foofu mu ne wallahu moom yàlla yashhadu mu ngi seede innahum ñoom ñii taxaw ci sa kanam di wax ne nangam nangam la kaadibuuna dañuy fen sama soxna da doon def conférence fan yii passé ci benn guddi ma gunge ko doon présider waxtaan bi bi muy def waxtaan bi am na aaya yu mu doon firi wala ay hadis mu daal di tudd baat bi comme ni ma ko tuddee léegi nii mooy innahum la kaadibuuna ñoom dañuy fen fekk muy wax jigéen ñi dañuy dem ci njabarkat yi njabarkat yi di leen wax ñuy ñuy gëm te njabarkat yi ay fenkat lañ maanaam mu utiliser terme boobu dañuy fen bi ñu paree benn waaye daan ñuy woo man la njëkk a woo ne ma waxal soxna si bu yo defati waxtaan baatu fen bu mu ko wax ndax baatu fen dafa ñàng waaw nay wax rek waxuñu dëgg nay wax rek wax nañ la ca ginnaaw dëgg ma ne ko waaw yàlla moom ban baat la utiliser innahu ah la kaasibun yàlla nee na ñoom dañuy fen kan moo gën a ndeysaan li gaay do kan moo ëpp yàlla teggin kan moo gën a yaru yàlla kan moo gën a xam yàlla nu ñuy waxee am na kenn yàlla moo ne ñoom dañuy fen kon ñoom dañuy fen loo ciy rafetal mais ñun dañoo yor yeneen yeneen gis-gis lañ gis ah boo nee diw day fen ñu ne déedéet déedéet bul wax loolu bul wax loolu bul wax loolu yàlla neen day fen day fen ah lu tax yàlla rafetul ko ne waa ji day day wax lu ci ginnaaw dëgg lii loolu yooyu yooyu terme ba tey moom la ñuy utiliser fii rek Sénégal bu waa ji sàccee ci buntu jàkka ji ñaari peeru daal ñu ne lu ngeen di wax dafa sàcc bu détourné milliard ngeen ne détournement wala ngeen ne bien bien bien mal ak wala ngeen ne enrichissement illicite yii yëpp ñett yii yëpp lan la sàcc la ne déedéet parce que kee politicien la day karwaatu day costume ñu ne non bu leen ne sàcc wax leen dafa jël lu moomul waaw ah loolu la rek dafa jël lum moom non bu leen sax ci tam dafa dafa jël lum moom waa léegi ki jël daal la ji ci jàkka yi moom lim jël nag lu tax wax ne jël na lum moom dañu ne sàcc la dañ ko jàpp daal yaa ngi nii ki jël ay milliards nag ñu ne bien mal acquis bien mal acquis mooy lan ci ci olof alal yoo xam li nga ko amee lewut loolu mooy lan mooy sàcc enrichissement illicite mooy lan sàcc ah voilà mais balancement d'argent yooyu terme yooyu la ñuy jël dinañu nax fekk ñëpp ay sàcc lañ dañ leen war a yóbbu fee yóbbu sàcc yi ñi sàcc kuddu yeeg paaka yi ñooñu sax ñoo gën a bon parce que ki sàcc ay dàll ki sàcc kuddu ki sàcc paaka kii ñuy dàq fii muy daw sàcc kalbe jaamur wala sàcc portable kooku sàcc bu ndaw la laa ilaha illallah dafa am benn sàcc bu garaaw bu am États-Unis d'Amérique ay gars yoo xamante ne dañoo organiser cambriolé benn banque ñëw génne seeni classe na ko ni ko ne banque bi waaf leen ñëpp waaf ñu jël vingt millions dollars def seen saak ne fes balaa police yegg si dem nañ directeur banque bi ak ki yor xaalis bi dugg ci biir waa ji ne xaalal ma alerte police mu ne ko defal ndànk gars yi ñaata lañ jël mu ne ko 20 milliards dollars mu ne ko ñaataa fi des mu ne ko des na fi 30 millions mun a jëlal yeneen 20 yi nga denc ko à côté nga doog a def alerte. police ñëw vër vër vër vër kër journaliste yi ñëw directeur bi génn voilà tey sàcc yi sàcc nañ fi 40 millions dollars sàcc yi dégg ko seen télé. ne non ñun fee lañ jël mais xam nga ñun vraiment ñun ñun muusuñu ñun muusuñu xoolal ñi am nañu te sonnuñu ñun nag xoolal luñ daj te bu ñu jàppee ñu dee. dégg nga de dégg nga sàcc bu nga sàcc yu nga sàcc bu ngand bi lu mu wax non bi mu déggee ñu ne vingt yi ñu sàccoon ñee yokk nañ ci yeneen vingt mu ne non wow mais mais mais mais ñi ñoo muus ñi ñoo muus. mu ne ndeke ñun ñun ay dof lañ ndax ñun ay arme lañ yor dem te buñ ñu jàppee alaxira lañ jëm munoon nañ ñoo rey léegi nag mu ne ndeysaan ñee na moom sàcc nañ te bu weer dee ñu fay leen te kenn du xam nu mu demee ñoo ngi seen i costume ñoom ñaar ñoo ngi xoolante fiis ngoon ay yàpp la de ñooñu tekki nañ moo tax sàcc dafa bëri ay façon ñu nekk sa addina bi ay sàcc dong moo fi nekk moo tax addina bi du jag luñ war a yóbbu ci miskin yi ñu sàcc ko waaye dañu yaakaar ne dinañ raw laa ilaha illallah wa man xalla yati bi ma xalla yawma alqiyama wallahi ku kullu maalin nabata ala haramin fannaaru awlaa bi man akala luqmatan min haramin la tuqbal lahu salata arbaina yawman sallallahu alayhi wa sallam ne bépp alal boo xam ne cosaanam dafa araam mu ne safara moo ci yey gis nga di waa ji di amee cinquante mille fekk dafa araam ci loterie nationale la ko jëlee wala pays mi la ko jëlee wala da koo carte mu taal safara teg ko ci moo gën mu lekk ndax boo lekkee cinquante mille francs bu araam fistin bu ci nekk boo jullee quarante jours yàlla du ko nangu cinquante mille ñaata fistin la ah dërëm ñaata fistin la da ngay dégg ñu ne cinq francs juróomi fistin la su fekkee ñaata dërëm ñu ne dix francs quinze francs vingt francs vingt cinq francs vingt cinq francs nga lekk ko fekk dafa araam benn franc bu nekk quarante jours duñ ko nangu julli kon kañ lañ lay nangul julli léegi nag un milliard bu araam nag mooy safara nga jëm parce que sa jaamu yàlla yàlla du ko nangu xoolal tey li ñuy coow ci dëkk bi milliard milliard milliard milliard milliard milliard diw détourné na tant milliard diw détourné na tant milliard diw nangam ba kañ ñu dafa ne duñ dee la ilaha illallah fàtte ne dañuy dee te xoolal waa ji détourné milliard yàgg yàgg day dee dajeeg yàlla kon foog ñu bàyyi xel ixwatal iman sunu borom nee na wallahu yashhad yàllaa ngi seede yàlla xam na innahum ñoom ñii tey taxaw ci kanamu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam di waat la kaadibuun dañuy fen yàlla yamul ci loolu mu ne yonent bi laa taqum fiihi abadan allahu akbar mbokk yi ndax doy woon rek yàlla ne muhammad laa taqum fiihi bul fa dem waaye mu ne ko abadan ba faw bul dem ci jàkka jooju moytul jàkka jooju bul fa sax taxaw laa taqum fiihi abadan la ilaha illallah su yonent bi ñëwaatoon tey yàlla dina ko wax bul dem ci jàkka yu bëri de moytul jàkka yi yëpp bul fa dem waaw ndax jàkka dóor li njaa jàkka jàkka jàkka jàkka yoo xam ne sawaay kenn xamul lu muy nuru waaw ku ci joxe dara sax ëllëg ak si biir bu ñuy wax da nga naan man maa joxe woon temps bi ma koy joxe damaa bëggoon ngeen falma imaam am naa benn am na sunu benn waaye boo xamante ne nee na jàkka ji maa doon denc xaalis bi waaw fii fii nii fii nii balaa kenn di fi nekk imaam maa fi nekk imaam loolu la ñuy fale imaam dañuy fale imaam yaa doon denc kees gi wala man maa man maa doon defar maa joxe woon tiwil yi tiwil yi ah wala maa defar bunt yi ay nit ñoo ne dañuy tabax jumaa ji dañ koy defaraat ba mu baax mu ne leen déedéet kenn du ko defar waaw mu ne ñu ne ko dañ gi mu ne déedéet man dama war a dem màkk waaye dama koy bàyyi léegi may jël xaalis boobu ma defare ko jàkk ngir bëgg nekk imaam rek xam na bu demee dina am ku jiite ñu dik ko billet màkk benn waaye ñëw politicien yi ne ko dama lay jox billet màkk mu ne waaw ci biir nit ñi ah nit ñi ñibbi mu dem ci kooku ne ko bàyyi ko ndax jàkka ji awma ko ma fi xaar bu feebaree day ñëw jàkk day ñëw xutba tabaski korite gaay ne dafa feebar daal koy yóbbu du def xutba mënul def xutba noonu lay def chaque tabaski korite day feebar day feebar feebarlu gaay yi yéen a koy yóbbu këram loolu du ko fi jaar yow mënoo doo bàyyi ah kan moo la forcé mais déedéet tey ma falu wala ngeen dee moo am Sénégal tey ma nekk imam wala ngeen dee wala kenn du fi julli nañ tëj jàkka ji loolu moo fi am yooyu jàkk yëpp nag ay masjid di raar la jàkka joo xam ne sawaay amoon naa benn gan vendredi jot mu ne ma fooy julle ma ne ko roi Baudouin laay jiite tey mu ne ma foofu de daa sori bàyyil ma julli fii ci koñ bi ma ne ko déet kaañ dem oto laay jël mu ne waay mënu maa dox bàyyi ma fii rek ma dem ñëwaat fekk ko muy julli tisbaar ma ne ko yow looy def nii mu ne ma damay julliwaat tisbaar ma ne ko la la mu ne ma fii seen jàkka ji nodd bi xutba bi julli bi yëpp deux minutes la ma ne ko du waxoon naa la kaañ dem nga bañ mu ne ma nodd bi xutba bi julli bi mu ne ma yëpp deux minutes la deux minutes ah xutba boo xam ne bisimilah rahmaani rahim allahumma salli ala foofu laa yem wasalaatu wasalaamu ala attaqullah ibadallah daa di toog loolu mooy première xutba bi deuxième xutba bi bismillahi rahmani rahim inna deux minutes nga daal di toog comme comme ça juróom ñaar fukki at loolu kese la fan xale yi sax mokkal nañ ko am naa sama benn doom benn jour mu ne ma tey man bu ngeen ma joxee ma jiite ma ne ko da ngaa mën a xutba mu ne wallahi i xutba imaam bi mokkal naa ko ma ne ko waxal mu daal di koy ratata drrr ñaari minute dafa ne ma jox ma kaala gi ma jox ko kaala mu ne jox ma yetu imaam bi ma jox ko mu ne ko dër mu taxaw waaw ma ne ko wax dëgg nii la de benn baat teggiwu ko ci wallahi alazim benn xarf teggiwu ko ci da koo mokkal këru lu tax ba mu juddoo ba léegi xutba boobu la fa fekk chaque vendredi mu ngi foofu loolu la fa dégg ah même xutba du changé.
amul changé waaw ba xale yi juddu sax mën nañ ko ñëpp liir yi sax picc yi sax mën nañ ko léegi loolu ban xutba la lan mooy xutba xutba mooy actualité ñu wax julli di lu xew ñu informer leen xoolal tey jii fii ñu toll Israël a nga ne di bombarder Gaza di rey jullit li fa dee barki fan yi kenn xamul nu mu toll ci ay nit xam nga ay ay bomb ay avion yu tiim ay nit yoo xam ne yoruñu dara nga leen di bombarder te xam nga lu garaaw man bu njëkk ba sax su Israël doon bombarder Palestine di nga gis ay nit di wax mais instant yi kenn waxatut ñëpp a noppi te tey su ay jullit laaloon ay yéeféer fenn rek nga gis ñëpp commencé wax waa Nations Unies commencé jóg waa ONU commencé jóg ku mu nekk ku nekk di wax nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam nangam waa ba kañ ñere la ñuy toogee rek ñere jullit yi ah ana innamal muminuuna ixwa ayna unsur ahaka zaliman aw mazluman ayna al muslim axul muslim ayna wal muminu lil mumin kal bunyan yasuddu baaduhu baad ayna wal muminuna wal muminat baaduhum awliyaau baad yaamuruna bil maaruf wa yanhawna ana aaya yi ana hadis yi ah ñun bi ñu juddoo ba léegi Palestine a ngi ci problème bi ñu juddoo ba léegi yéen ñi bi ngeen juddoo ba léegi Palestine a ngi ci problème wala kenn du ko réglé fépp àdduna bi yëpp réglé nañ ko ba mu def foofu lu tax parce que ci ñun la xam ngeen nan lañ ëpp yahudi yi ci àdduna bi ndax xam ngeen ko bu ñu jëloon xottu gerte julli yi ci àdduna bi ku nekk ñu jox ko xottu gerte bu ñu daaj ji ba pare lekk gerte bi xott bi bu ñu xaree gerte bi ñaata xottu gerte la gerte bi daam ñaar ku nekk ñu jox la benn nga def ci ndox ñun julli yëpp ñu téye ko ñu dem ba Israël ñu xëpp leen ko dañuy lab ça veut dire que lan mooy lan mooy loolu buñ ko defoon ay paan moom kon dañuy dee ñoom ñëpp foofu kon kenn du jóg waaye xoola xottu gerte laa wax buñ ko defoon ndox ñun ñëpp julli di ci àdduna bi ñun ñëpp ñu yéen ko nii ñu ñëw ba Israël ñu ne leen ko nii dañuy lab dee kon bu ñu yoroon ay paan kon kenn ku nekk ñun bu yoroon benn paan wala benn siwo luy xew xoola ni ñu leen ëppee ak ni ñuy reyee julli di ak ni ñuy ni ñuy yàqee masjidul aqsa ak salte yi ñu fay def ak mbon yi ñu fay def waaye da ngay xëy suba ndeysaan da nga koy seetaan léegi journal nga xëy suba doo dégg aalam bi ku wax ñëpp dafa mel ne waa Palestine moom du ñu ay jullit danañu yàlla taxaw ixwatal iman sunu borom subhanahu wa taala mu ne la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqu an taquma fihi maa ngi lay yëgal yow yonente bi alayhi salatu wasalaam jàkka ji nga xam ne la masjidun ussisa ala taqwa jàkka ji nga xam ne dañ koo fonde dëppi ca njëlbeen ba première paire ba bañ koy teg ca ragal yàlla lañ ko teg mooy masjidu quba ca première fois ba nga génnee màkka di ñëw Médine nga tabax jàkka jooju rëdd ko yonent bi alayhi salaatu salaam yàlla ne ko jàkka jooju a xàqu moo gën a yey an taquuma fiihi nga dem nga taxaw fa nga jaamu fa yàlla lu tax fiihi rijalun yuhibbuuna an yatataharu foofu day am na ñu fa nekk ñu baax ñoo xamante ne ay góor lañ mooy banu amr ibnu awf ñoom ñoo nekk foofu famille bu baax ñooñu day ñoom ñoo yey nga dem ànd ak ñoom jaamu yàlla ca seen jàkka jooju nga xam ne mooy masjidu quba soo soo aje jee màkk jumaa jàng ca medinatul munawwar loolu gaa yi naan kullub ziyaar da ngay gis nit ñi def jugg ci ay kaar dem masjidul quba ndeysaan julli fa Euh, jàkka ju mag la ju weex yenent bi alayhi salaatu salaam moo teg première pierre bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare yonent bi moo ko tuddee masjidu quba jàkka jooju am na daraja joo xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam wax na ku fa julli ñaari rakk maanaam dafa am jàkka yoo xam ne ñoo gën a rëy ci jàkka yi ñoo gën a màgg jàkka ja ci jiitu mooy mooy màkk ñaareelu jàkka ji mooy masjidu nabawi jàkka yonente bi ñetteelu jàkka mooy masjidul aqsa mooy bi may wax léegi Jérusalem ñeenteelu jàkka bi mooy masjidu quba gis nga ana beneen nag yeneen nag yëpp a yem yëpp a yem bu yeboon nag seen xel dem fu nekk man dama ne yëpp a yem tudduma benn bi ñu tabax fi ak néegu ñax ak bee ñu def fee or ñoo yem waaye ñeenti jàkka yi moom génn nañ ci kon kay jaru sonn xaalis bi am na fu mu xaj xaalis bi am na fu mu xaj nañu bàyyi xel loolu bu baax a baax jàkk nañ ko tabax rek mu yem pour julli kese la ak jaamu yàlla liñ ciy def jullit ñaa ngi fii bu ñu génnee léegi dem ci hôpital yi xanaa xamu leen defar hôpital wala defar teen wala defar fu ñuy jàngee moo ëpp tiyaaba tabax jàkk ndax lee ay nit ngay sëbe ay nit ngay dimbali nit ki balaa muy dem jàkk dafa fekk mu wér ba pare dafa fekk mu suur dafa fekk su xamulee sax bu demee jàkka ji day yàq ah gis leen suñ jàkka yi lu tax mu yàqu xamuñ da ngay gis ba paa boo xam ne da nga ko ne mun a la la ilaha illallah gisoon naa paa boo xam ne boo ko ne mun a la bul ma laal boo nee ni mun a la loolu mooy lan ah nit bu xamulee bu ñëwee ci jàkk day yàq bu fekkoon dafa war a defar day yàq parce que du fa def lu ñu xam moo tax balaa ngay dem jàkk fexeel nga xam sart yi nga xam ne moom la ñuy demee jàkk fexeel nga xam sart yi ñuy nekkee ci jàkk fexeel nga xam jàkk lan moo tax nga fay dem kan moo tax nga dem jàkk waaye boo xamulee dara nekk ci stade yi ci làmb yi ba retraité wala nga nekk ci théâtre yi ba retraité Sénégal moom ku retraité rek dem jàkk Casamance laa dem fekk benn directeur école bu retraité jël ba jël micro bi léegi moom mooy noot bu nootee ba pare mu ne il reste cinq minutes avant le prière noonu lay def bu desee quatre minutes maintenant il reste 4 minutes noonu la koy toppee maintenant il reste une minute keneen dégg ko fële di ko wax mu dem fekki kooku ne ko loolu maa ko moom maa ko fi wala yabaate yooyu ci biir jàkk yi di fo
Sénégal li ñu war a def maanaam dañu war a tabax nit ñi ba pare balaa ñuy tabax
xoolal xoolal xoolal affaire boobu nu mu garaawee yow nekk foofu ne bi kañ lañ la xam bi ngay retraité militaire bu retraité bilaal lay nekk mbër bu retraité bilaal lay nekk footballeur bu retraité bilaal lay nekk théâtre kat bu retraité bilaal lay nekk politicien bu retraité dàq nañ la kenn bëggatu la nga ñëw nekk bilaal di yàq di yàq nodd yi rek waaw dem jël sa këyit bind nodd bi ci français ba mun ko rek ñëw jël micro bi comme ça yaa na moo ngi nii fekk xamoo dara ba pare nag bëri fa wax di fa indi ay histoire di fa jaay problème di fa indi yu kenn xamut tàqale jàkka ji loolu moo am tey suñu jàkk suñu jàkka yi suñu borom nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na fa ay nit yoo xam ne rijalun yuhibbuna an yatataharu ay nit yoo xam ne ndeysaan ñoom dañoo bëgg a laab te wallahu yuhibbul mutatahirin yàlla bëgg na ñi laab allahu akbar wallahu yuhibbul mutatahirin borom bi ne afaman usisa bunyaanuhu ala taqwa min allah wa ridwanin khayrun amman assasa bunyanuhu ala shafa jufurin haarin fanhaara bihi fi naari jahannam waaw yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam afaman assasa jàkka ji nga xam ne dañ koo fonde première pierre bi bunyaanuhu tabax bi ala taqwa min allah dañ koo fonde ci ragal yàlla jàkka ji ba ñu ñëwee ci quartier bi di ko def ñëpp ànd ne nañ ko def ñëpp ne dañoo war a julli dañoo war a am jàkk ñëpp ànd ku nekk am li nga indi ñu futteeku defar ko ngir yàlla jàkk yooyu niroowul ak jàkk ji nga xam ne dañ koo tabax ba pare ñu ne kaa la ñu tànn imaam ñu ne diw mooy imaam diw mooy imaam keneen ne man nag ñu ne ah wax dëgg yàlla ñaar ñi lañ tànn ah di ngeen xam maag yéen la arrière fee tabax jumaam wala jàkkaam ndeysaan benn fajar gu ma julli woon ci benn jàkk imam bi ne maa ngi tukki waaw damay dem place sangam diw ak diw laa fi bàyyi rek benn bàyyi man nag imam bi ne ko diw laa fi bàyyi waxtu yu juróom diw laa fi bàyyi vendredi muy jiite duma ko nangu lool du fi am fii yëpp imam bi daal di jóg dugg néegam coow li ne kur ci jumaa ci imam daal di tukki egg dee defu fa trois jours imam bi kenn suulu ko Sénégal foofu lañ ko suul fi mu demoon dafa yegg dee yal nañu yàlla taxaw kon jàkka nañ ko tabax ci ragal yàlla nañ ko tabax ci ngëm yàlla ridwaanu min allah wa ridwanun xayrun ci ñu tabax ko ci ngërëmal yàlla tabaaraka wa nee na loolu moo gën ci jàkka joo xamante ne assasa bunyaanu dañoo teg fondement bi ala safa jufrin haarin ci kaw pind xam ngeen pind teen buñ ko gasee ba ci kaw pind bi moom ngay taxaw doog a dugal baat mooy buntu teen bi jàkka joo xamante ne dañ koo tabax ci pindu jahannama ci buntu jahannama lañ ko tabax soo ci taxaw ci biir jahannama nga jëm mooy masjidu diraar waaw ala safa juruf mooy taraf mooy pet cat bi ka haalpulaar ka haalpulaar ananay pullo woni damal e bange he ah jàkka ji noonu lañ ko tax tabaxee ala safa jufrin jurufin jazakallah xeer allahu akbar jurufin mu ne haarin boo xam ne dafay màbb xam nga boo ñëwee ci buntu teen teen bi màbb nga taxaw ci pind bi ci buntu bi nu muy def tey màbb ak yow ci biir te yàlla nee na yonent bi alayhi salaam boo taxawee ci jumaa ji nga xam ne ci buntu jahannama lañ ko tabax jumaa ji buy màbb di dugg jahannama ngay duggaale moo tax yàlla tere yonent bi ne ko ala safa jurufin haarin mu ne fan haara bihi fii naari jahannam jàkka ji yàlla dakaa daaneel dugal ko ci biir jahannam ne wallahu yàlla laa yahdi du jubal alqawma zalimina nit ñoo xam ne ay tooñkat lañ gis nga sànq liñ doon wax ci tooñ borom bi ne laa yazaalu dañul bunyaanuhum allazi banaw fondement bi nga xam ne moom la ñu tabaxoon yàlla nee ne fondement bi dañul riibatan fi qulubihim nekk sikki sàkk ci seen xol yi parce que muy seen bëgg-bëgg gis nga naa fekk bu defee dara mbir mi day des ci xol bi même buñ ko dindee nii ci kaw day des ci xol bi am na am na ñu doon ànd ak yonente bi alayhi salaam borom xam-xam yu mag yi dañ naan ñooñu ba léegi seen islam wóoru ndax am na ci koo xam ne bañ ko ne bi ko yonent bi ne yow diw munoo gëm ne man yonent laa yàlla mu yónni mu ne kon yonent boog yonent boog moo tax gars yi di ko sikki sàkkal ay mbiram yonent boog dégg nga am na ñoo xam ne chaque jour seen xol yi ñooy bañ xol yi ñooy bañ dafa am benn benn ñaari tarixa tarixa yi dañuy wax soo bokkee ci tarixa bi tarixa bi bul dem bul dem dëkku tarixa boobu bul jël wirdu tarixa boobu bul nuyu ku bokk ci tarixa boobu benn paa mbokkam de ñuy suuli mbokkam boobu ci kë- tarixa boobu seen dëkk mu dugg ci oto bi dem ba yegg ci dëkk ba mu fàttaliku li mu jàngoon mu gëmm bët yi ñu ne ko lii la la mu ne jumaa ji du ma ko gis du ma gis jumaa ji dégg nga dégg nga gis nga yëfu dof yooyu loolu mooy tàqale jullit yi ñu fexe ba jullit ñi duñu ànd ñu war a nuyoonte war a ànd war a saafonte war a bokk jàkk ñu tàqale ñu tey loolu la ñuy def dañ ñoo tàqale ñu ñëpp dañuy tamante dëmm waaw benn borom xam-xam bu tudd Mutawalli Sha'rawi dafa gis benn xale xale bi ne man de bu ma amoon bomb dinaa exploser jàkka bee mu ne ko subhanallah ah mu ne ko wallahi sëriñ bi su ma amoon bomb jàkk ji dinaa ko ña fa nekk ñépp dee mu ne ko buñ dee fuñ jëm mu ne ko safara borom xam-xam bi ne ko kon de yow yaag iblis yéen a bokk programme ndax iblis programme am mooy nit ñi ñu dem safara kon yow tamit sa programme mooy nit ñi def safara kon yow ak iblis yéen ak yonent bi bokk leen programme yonent bi mooy programme am mooy nit ñi dem àjjana yow sa programme yaa ak iblis ngeen dem safara nga yóbbu nit ñi safara kon yow yaa yaa ak iblis sa bokk diine waaw yonent bi bokk leen diine ndax yonent gis na lu ñàng loolu mais terewul dafa dem fexe di leen génne pour ñu dugg aljanna kullu ummati yadxuluuna aljanna illa wa qiila man yaaba ya rasulallah qaala man ataani wa man asaani mu ne yàlla bi mu ma yónnee damaa takk sama ndigg damaa ñëw fekk nit ñi dem safara ma takk sama ndigg ma ñëw di leen récupérer pour duñ dugg safara mu daal di koy nettali moom yonent bi mu ne yàlla bi mu ma yónnee damaa mel ne nawet bu jot dafa mel ne nawet bu am nawet su amee nga dem ba ci digg àll ba nga taal safara lan moo lay wuyu si ah gunóor yi gunóor yi bu ñu ñëwee lan moo leen di indi lumière moo leen indi ak lan ak bëgg a jaaru bëgg a jaaru ndeysaan ndax àll bi day sedd waaye bu ñu ñëwee ñoom lu ñuy def dañuy dugg ci biir safara si gis nga même oto yi bu ñuy daw ci autoroute yi oto yi bu ñuy daw da ngay gis seen lumière yi di mbëkk ay gunóor parce que gunóor yi dañuy seen lumière bi ñëw doon xool safara si daal di oto bi rey leen parce que gunóor moom xam ngeen ne du contrôler boppam amul xel moo tax bu ñuy gis safara day dugg yonent bi nee na man nag man maa taxaw yéen ku bëgg a dugg safara ma téye la ne la déedéet taxawal nii kon yonent bi yàlla da kaa yónni pour nit ñi duñ dem safara nga gis ci ñun koo xam dafa ñëw bëgg a yóbbu nit ñi safara yor programme mu yóbbu nit ñi safara laa ilaha illallah moo tax waa ji bi mu ñëwee ci jàkk yonent bi daal di saw gaa yi jóg bu ko rey yonent bi ne déet ñu bàyyi ko waa ji taxaw yor waa yàllam ni cur di xool gaa yi naan leen nii yonent bi ne bàyyi leen ko rek bàyyi leen ko rek yoon gisoo li muy def waaw bàyyi leen ko rek waa ji saw ba pare yonent bi ne sotti leen benn baagu ndox fi arab bi saw sotti ci ndox yonent bi woog ne ko yow xanaa xamoo fii jàkka la jàkka kenn du ci saw beneen yoo ne boo buggee tuur ndox nga dem place yi sàngam yi nga mais fii ndeysaan waa ji xool yonent bi ni mu ko def mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham maana ahad yow yàlla yal nag ma yërëm man ak yonent bi mais ñeneen ñi ñeneen ñi buñ ci bokk de maa ak yonent bi rek yonent bi ne ko déet waay axi mu ne ko ah mu ne ko laatu dayiq alwaasi ata bul xatal lu yaatu mu ne ko lan moo yaatu mu ne ko yërmande yàlla dafa yaatu bul ko xatal ñii say mbokk la ñaanal leen allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam yonent bi pare mu ne mu ne gaa yi xanaa xamu ne kii bi muy saw bu ngeen ko reyoon safara la jëm ku saw ci jàkka ñu rey la waxuma ne nag nga saw ci jàkka waaye ban jàkka nga saw ku demoon tey ba Tivaouane mu saw fa wala ba Touba mu saw fa wala ba fële nga saw fa lu ñu lay def ah mos dañ lay dagati kon ki saw ci jàkk yonent bi nag xoolal yonent bi dafa ko waa jooju kenn rayu ko ndax yonent bi ne bu ngeen ko reyee safara la jëm te yonent bi yàlla yónniwu ko pour nit ñi dem safara sallallahu alayhi wa sallam allahu akbar moom mission am yëpp pour lan pour nit ñi dugg àjjana moo tax yàlla ne ko wa ma arsalnaaka illa illa rahmatan lil alamin laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil muminin allahu akbar yonent bi yàlla dakaa yónni mu nekk gaalu gi yërmande sallallahu alayhi wa sallam bugul kenn dem safara moo tax même baayam Abu Taalib bi muy bi mu bi muy feebar di sukuraat yonent bi taxaw ci bopp bi naan ko waxal laa ilaha illallah benn baat rek ma solal la robbu avocat ma layal la ci kanamu yàlla nga dem aljanna benn baat yonent bi fekk na yahud yahud buy dee yahud mu seeti xale bi mu fekk xale bi di sukuraat xale bi yahud la mu ne ko xale bi qul laa ilaha illa allah xale bi daal ne nii papaam parce que papaam xam ne ne kii yahud la ñoom yahud lañ xale bi ne nii papaam papaam ne ko ati abal qasim toppal baayu qasim toppal yonent bi xale bi ne laa ilaha illa allah yonent bi ne xale bi day dugg àjjan allahu akbar kon moom yërmandeem euh, yàlla da kaa yónni woon pour mu nekk yërmande yónni ko pour nit ñi dem safara ixwatal iman borom bi nee na gars yi seen jàkka jooju ñu tabax laa yazaalu bunyaanuhum lezi banaw fiihi laa yazaalu dañul bunyaanuhum lezi banaw riiba fi qulubihim seen jàkka jooju fondement bi dañul di nekk ak naafiq ci seen xol yi sakkan di sikki sàkk fii nufusihim ci seeni bakkan borom bi nee na illa an taqattaa qulubuhum lu dul seen xol yi danañ dagg ah ca yàlla tabaraka wa taala la mu def mooy mabb jàkka ji yonent bi alayhi salaatu wasalaam lakk jàkka ji ndax yàllaa ko jox ndigal ne ko daaneel ko waaye lakk ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni saxaaba yi ñu daal dem ndeysaan daal di daaneel jàkka ja ñaar ñi yonent bi alayhi salaatu wasalaam yónni woon ba ñuy dem gëlët yañ doon taale yamb yi pour am pour am lem moom lañ jël bañ ñëwee màbb jàkka ji daal di koy lakk kon mbokki jullit yi ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu azza kamaaluhu mu dëgëral ñu ba ñu xam jàkka yàlla tax ñu koy tabax waaye du ngir puukare du ngir nangam du ngir sàmba du ngir wonewu borom bi ne wallahu alimun hakim yàlla aji xam la waaye ku xereñ la loolu mooy sunu darsi tey asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh